ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre vingt dix point cinq rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot euh, dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Ardo Gningue nekk activis ñu fas yéene waxtaane situation activiste yi file ci Sénégal arrestation bu Guy Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf Euh, menace bi nga xamante ni moo am ci liberté yi euh, fii ci Sénégal ak tolluwaayu démocratie bi affaire Ousmane Sonko bi occupé actualité bi ak kile di aji Sarr ñu accusé ko ab viol ba tax nag euh, teggi nañ sax li nga xamante ni moom mooy immunité parlementaire am ngir justice mën a def liggéeyam daañu ko waxtaanee ak vaccin contre la Covid 19 yi nga xamante ni tàmbale nañ ko fii ci Sénégal ponk yu ni mel ak yeneen yu soxla actualité bi daañu ko aborder accordé ak kile di Ardo ñi ngi nekk activiste suñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice bu réew mi FM maa ngi nuyu sama jigéen euh, Ndeye Coumba Moreau di am mbégte ak kontaante bokk ak moom ak yéen ñi ñu déglu ci émission bi. voilà ñu lay remercier ci sa disponibilité laaj bu ñu lay njëkk a laaj Ardo Gningue euh, exactement Ardo Gningue activist acteur politique lan lañ si mën a dégg exactement. liñ ci mën a dégg mooy que ne euh, Ardo Gningue dafa benn nekk benn jeune bu engagé benn jeune boo xamante ni lépp luy jëm si wàllum injustice daf koy xeex ci réew mi jeune boo xamante ni aussi dafay participer. ci développement wu dëkkam kii di développement nag di l'art de bien gérer les affaires de la cité donc Ardo mën nañ jàpp ni acteur politique la donc loolu moo waral Ardo Gningue activiste buy xeex nooteel buy xeex injustice Ardo Gningue acteur politique buy participer ci développement wu dëkkam acteur euh, politique exactement lan lañ si mën a dégg da am parti politique da nga am mouvement euh, boo ne activiste waaw ngay xeex euh, mbir yu bëri mais lan moo tax nga euh, dëppee sa bopp acteur politique. lu waral ma def sama bopp acteur politique parce que man ànduma si ndaw yi nga xam ne tey dañoo bëgg a jël politique ñaawal ko parce que objectif suñu dirigeant yi mooy que ne baaxul politique lu bon la. képp ku koy def amatoo kàddu te ne plus digne loolu nag mu bokk ci ndaw yi nga xam ne dañ koy xeex nekkuñu acteur politique pour être un politicien pour bokk ci benn part politique mais actuellement fi ñu toll dañoo nekk acteur politique pour di participer ci développement wu dëkk bi pour di participer aussi si lépp loo xam ne tey dafay laal politique général de notre pays. Mhm. Arda ñu ngi kon moom pare na pour accompagner euh, leader politique yi nga xamante ni moo fi nekk am na peut-être ku mu bëgg a accompagner ànd ak moom ci wàllum politique. waaw àgguñu foofu tollaguñu foofu fi ñu nii. yow tollagoo foofu. tollaguñu foofu fi ñu toll nii suñu engagement si lan la lépp loo xam ne dafay laale ci ci yëfu politique lépp loo xam politique moo ñoo ngi koy gérer ci mal gouvernance ci lépp ñu génn dénoncé ko lépp loo xam ne tey politique bi. war nañ cee mën a impliqué wu pour que suñu réew mën a jëm kanam ñu mun cee impliqué wu waaye fi ñu toll nii ñu toll bokk amaguñu benn carte membre parti politique bu mu munti doon amaguñu aussi benn parti politique waaye daal lépp loo xam ne daal dafay laale politique ñoo ngi si biir si débat politique yi comme ni muy invité tey ci ak yeneen nañ geneen yoo xam ne lépp loo xam ne daal. dafa laal ci gouvernance du Sénégal ñoo ngi ci biir. Euh, yow tey ji euh, Ardo boo ñu doon euh, définir li nga mhm. xamante ni mooy activisme lan lan lan mooy activisme ci boppam lan lañ mën a dégg ci ci activiste parce que dafa nekk loo xamante ni mi ngi commencé di jur mhm. ab ampleur ku jóg rek ne moom activiste la ainsi de suite lan lañ mën a dégg ci activiste carrément lan mooy activisme. jërëjëf Ndeye Comba Moreau xam nga activisme. dafa bëri ay façon am na activisme religieuse am na ñoo xam tey ñoo ngi conseillé ci ay daayira lépp loo xam ne dafa laaj diina bi dañuy dal ci seen kaw am loo xam te ne aussi ci wàllum sport mooy activisme sportif mooy ñi nekk ay ASC yi lépp loo xam te ne tey dafay laal ci ASC gox bu mu tuddoon am na ñoo xam dañuy taxaw pour défendre intérêt yooyu am na ñoo xam te ne tey ay activiste lañ ci wàllum politique lépp loo xam ne tey dafay delloo ginnaaw suñu démocratie dafay delloo ginnaaw li nga xam suñu bonne gouvernance dañuy taxaw pour défendre ko donc man nii dama bokk ci activiste politique yooyu activiste nag du lenn lu acteur activiste bu ñu koy wax c'est dans l'acte mooy ñi xam ne tey dañuy wàcc le terrain dañuy faral di manifester dañuy faral di wane seen mécontentement saa su nekk politique bi ni ñu yorale yorale ñu dëkk bi ñu gis ne jaarul yoon mais dañuy wax ni léegi ku jóg rek ne def boppam activiste mel ni activiste moom wala activisme métier bu bees la ku amul looy def euh, amoo benn lu leneen lu la occupé rek nga nekk ci Facebook bi wala nekk euh, ci YouTube bi di def say vidéo euh, di saaga nguur gi ainsi de suite mel ni daal benn xeetu liggéey bu bees la noo ko lan ngay tontu ñuy wax loolu loolu du activisme hmm. xam nga toog xam nga dafa am lu am liveur dafa am. Mhm. am chroniqueur. Mhm. am activiste. Mhm. liveur bi mooy ki xam ne tey day toog ci salon mu yaa xam nga nekk Europe wala nga nekk Amérique wala nga nekk Sénégal foo munti ne nga toog sa salon ngi def say live kooku liveur nga. chroniqueur mooy ko xam ne tey day toog di def ay analyse ay day toog di bind ay texte ci li nga xam moom mooy yoruñu réew mi activiste nag mooy ko xam ne tey chaque fois moom si le terrain chaque fois bu gisee lu ko naqari day wàcc sur le terrain comme sama genre gi nga xam ne ñoo ngi si seen sixième arrestation defeere nañ leen fi dund nañ torture def nañ lu nekk ndax lan pour xeex nooteel ñooñu la ñuy woowee des vrais comme le cas de Guy Marius Sagna comme le cas de Assane Diouf comme le cas keneen a keneen ak keneen ak keneen cautionné wu ma nag bépp benn indiscipline mhm. si wàllum activisme wala fa nekk loo xam te tey engagement la ci ñan ngay engagé wu ci le peuple sénégalais peuple sénégalais bi nga xam te ne mooy waa kër Seydi Hadji waa kër si Maam Borom waa kër Maam Baye Laye waa kër euh, Abikoun euh, jam euh, mooy les abbés waa kër yëpp bépp diine kër diine waa kër ñëpp ko bépp sénégalais waxam te tey si seize millions yi yow yaa ngi engagé pour di défendre seen intérêt si paysans yi si ñeneen ak ñeneen ñeneen donc activisme dafa nekk loo xam te kenn ku nekk la war waaye tamit du ku jug rek mën a nekk activisme ça dépend nag ci sa niveau d' engagement engagement boobu ngay engagé wu xëy na yàlla moo koy def ci yow wala mu nekk loo xam te am na détermination la mais dañ koy def par conviction amul lu ñu ci fay amul ñu ci dara lu ñu ci jëlee lu lan bëgg-bëgg bu ñu am suñu réew patriotisme bi nga xam ne tey moo nekk si ñun. d' accord léegi tey jii Ardo Gningue euh, yow ban touche. Euh, ngay apporter euh, parce que am na ay activistes yu fi nekk am na ñu fi xeex ñu ñu ràññee mais Ardo mhm. moom ban touche la mën a apporter wala lan lay apporter lu bees par rapport ak ñi nga xamante ni euh, ñoom la fekk ñuy xeex ñu leen di tuddee ay activistes fii ci Sénégal lan mooy touche Ardo waaw touche bi ci wane mooy que ne Ardo Gningue suñu ji nga xam ne vraiment ah jàpp nañ ne liñ fi fekkoon amaana nekk looloo xam te ni jaarul yoon ci wàllum injustice ci wàllum bëri bëri na am na ñoo xam te nii doon nañ ko xeex ñooñu si jiitu comme suñu doyen yi waa kay Y'en a waa ñoom euh, Guy Marius ak ñeen ak ñeneen Abdou mais ñun en tant que jeune ma dama gis ne engagement jeunesse bi ci mbirum activisme dafa des te aussi ñoo ngi jël ay exemple ci ñoo xam te nii di ay royukaay léegi ñun man mii di waxee yow moins de trente cinq ans am na ñoo xam te ni tey ñu bëri ñu jiitu si activisme bi la dama exemple waa kër yaa waa Yaana Mari kii muy Guy Sagna ñoom Abdou Karim ñoom ñëpp ils ont dépassé l'âge de quarante ans te ñun ndaw ñi ñu constituons plus de soixante cinq pour cent de de la population maanaam képp koo xam ne am nga moins de trente ans yow ci constitue plus de trente cinq soixante cinq pour cent de la population donc ñun ndaw ñi man damay jox fi ñu toll nii li nga xam ne mooy espoir damay jox aussi yi nga xam ne ndaw ñi li nga xam ne tey moom mooy euh, naka lañ ko mën a tuddee sax euh, euh, espoir laa leen di jox jox leen aussi. motivation ñu gën a gëm seen bopp voilà. Mm-hmm. que ñu xam ne Sénégal ñëpp ñoo ko bokk. yeneen ni Sénégal ñun ñëpp la war a concerner parce que politique bi ñoom ñoo gérer suñu ndox ñoo gérer suñu courant ñoo gérer suuf si. ñoo gérer lépp ñoo gérer suñu emploi ñoo gérer lépp donc tey lépp loo xam ne tey askan Sénégal war na fee mën a génn dafa war a delluwaat ci sénégalais donc ñun ñëpp dañoo war a engagé wu bépp ndaw dañoo war a engagé wu ñu toog rek di seetaan suñu grand frère ñu leen di tëj di tëji ñu ñuy kaasal ñu toog di courage suñu bras donc ñoo ngi leen di jaajëfal ñoom tamit nga xam ne ñun tamit am nañ suñu wàll euh, tey jii Ardo ñing suñ ñëwee ci situation euh, activiste yi fii ci Sénégal euh, yow est-ce que jàpp nga ni ci xeex bi nga xamante ni activiste yi ñu ngi koy amal est-ce que apporté nañ quelque chose est-ce que marqué nañ seen empreinte est-ce que gis nga ni activiste yi am nañ njëriñ fii ci Sénégal wala amuñ njëriñ lan la ñu jot def boo doon natt tey les activistes yow ak say ak say moroom. bien sûr xam nga sànq da nga ma posé question am solo da nga ma lu waral tey ku tëb rek bëgg ne activiste loolu may wane réussite activiste yi si li nga xam ne moom mooy situation dëkk bi tey jii ma jox la benn exemple. Mhm. xam nga bu opposition bi dañ daan opposé wu mais fi ñu nii gis nañ ba dem nañ ba gis ne opposition bi dañoo xaw a reculer troisième troisième pouvoir mën nañ jàpp ne la presse seen rôle bu ñu war a joué joué wuñ ko. léegi ñun activiste yi ñooy ñëw di wax dëgg sénégalais ñooy ak ñun activiste ñu ñooy ñëw di di di wàcc le terrain di di wax nit ñu dëgg di réveiller les consciences di aussi di bañ pour opposants yi waroon a bañee ñu tax bañee fa société civile si lañ bokk parce que ñun ñëpp si lañ bokk muy journalistes yi di ñun ñun ñëpp si lañ bokk donc ñun tamit yaakaar naa ne ñoo ngi suñu rôle bi nga xam tey mooy suñu rôle donc jàpp naa ne aussi avancement mu ngi ci am. parce que soo xoolee léegi démocratie bi ñu toll nii fu mu ne fu mu egsi ndaw ñi bu ñu demee ba mën a yeewu. Mhm. ba xam euh, lan mooy plénière ba xam assemblée nationale foor a ba xam pétrole bi gaz bi li nga xam ne tey moom mooy jafe-jafe yi ñu ci am contrat yi ñuy jaay ak geneen a geneen ci kon euh, français yi ñuy jëlee si ay euh, ressources yeneen ak yeneen loolu nga xam ne moo ci am ci éveil des consciences boobu activistes yi jàpp naa ne joué nañu si bu am solo. Euh, tey jii ñu laaj la beneen euh, ponk bu soxal actualité bi parce que kile di euh, Guy Marius Sagna mu nekk activiste boo xamante ne ràññee nañ ko gis nañ tamit keneen ku ñuy wax Assane Diouf ak tamit door seen ñoom actuellement ñi ngi ci kaso bi ñu jàpp leen yow ban jàngat nga am ci seeni arrestation ban jàngat nga ci am. waaw xam nga situation dëkk fu toll nii mën nañ jàpp ne. Euh, la peur à changé de camp tey ji tey ñun activistes yi ñoo waroon a ragal euh, li nga xam ne mooy état bi mooy appareil étatique bi mais bu ñu demee ba ñoom di ñu surveiller vingt quatre heures sur vingt quatre ñu yónnee ay RG da ngay génn sax gis benn jaaykatu banaana mu leeral ne kii nii RG la yoo lay topp wala ngay dox di gis nit mu yor téléphone di la topp. 24 heures sur 24 man dama koy dund Abdou Karim koy dund Guy Marius Sagna koy dund Assane Diouf ñun ñëpp dañ koy dund loolu léegi nag ñoom bu ñu ñëwee ba ñun suñu ay activité 24 heures sur 24 ñu koy surveiller c'est-à-dire que ñoom ñoo ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax léegi nag gis nañ lu xew woo xam te dafa dafa dindiwoo dara yow yaa ngi toog di nekk sa kër di yow di am say doom am sa njaboot ku ci mel ne Guy Marius Sagna am un gosse de 4 ans dem ci bitik di jëndi dara pour avant couvre-feu bi ñu jàpp ko kidnappé ko yóbbu ko tëj donc foofu lañu toll suñu réew recul démocratique boo xam te ni c'est vraiment déplorable donc aussi ñoo ngi koy ñoo ngi ñaan ñu libéré ko dans les meilleurs le parce que place am du foofu au contraire ñoom ñoo ko waroon a euh, surveiller ñoom ñoo ko waroon a euh, garde sécurité parce que nekk na koo xam te ni ku exposé wu la amul garde corps amul dara jàpp naa ne bu dee menace moom constaté wul menace ñoom ñooy constaté menace moom ñi nga xam ne tey ñoo ngi jël suñu ay àq ak suñu yelleef di ko di ko di ko salfaañi mais yow euh, Akh Doe Gningue est-ce que li ngay wax am nga ci preuve que euh, état bi daf leen di surveiller di surveiller seen lépp daal di leen topp ainsi de suite est-ce que am nga ci ay preuve ci loolu ngay avancer. bien sûr ba demoon ñaar rek. Mhm. laa demoon Tivaouane doon fa def benn conférence dama toog ba ci yàgg gis ñaari RG ñëw toog ci ci assisté si ma ma te ñooñu yàgg naa leen di gis ndeysaan fekk benn waaye sama benn xarit ñëw di ma leen présenté ñu ne ma Ardo ñii kat ay RG lañ moo tax taxaw waxal waxtaan ak ñoom daal di jël seen numéro ñu jël sama numéro ñu taxaw waxtaan ma xam leen carrément ñun luñ fi ñun yéen lañ fi nekkal lu ñuy dénoncé lu ñuy xeex pour yéen la parce que man mii di wax ak yéen. sama waaju bu góor homme de tenue la te yaakaar naa ne ba mu retraité état du Sénégal da koo seetaan ba tey ji tey yàlla moom la ba kanam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xam te ni ay homme de tenue lañ donc raison pour laquelle yaakaar naa ne ñun li ñuy xeex yéen homme de tenue am ngeen ci wàll am ngeen ci cër parce que tey certes yéen ngi sol tenue mais suba di ngeen simi tenue bi te yéen seen ay doom dañu ay homme de tenue seen jabar di homme de tenue seen yaay duñu am indi seen te li ñuy xeex ñun pour ñoom la luy joo xam te ne dafay war a jëm si askan wi askan bi jëriñoo ko pas ñu koy jël di ko jox ñi nga xam moom mooy impérialiste yi ñun askan bi lépp loo xam ne ñoom ñun yelloo nañ ko suñu àq ak suñu ay yelleef ñu jël ko di ko salfaañi saa su nekk donc ñu loolu moo ñu tax a jóg di ko xeex ba bëccëg te yéen yéen am ngeen ci cër am ngeen ci wàll moo tax ma ne la. Mm-hmm. LG yi c'est très normal. surtout parce que ay renseignements généraux lañ. Mhm. dañoo war di renseigner ñi nga xam te ne ñoom ñooy ministère intérieur mooy état bi si ñun si li ñuy dox guddeeg bëccëg te man yaakaar na ne ragaluma loolu à chaque fois maa ngi leen di gis di di di jëflante ak ñoom ci jàmm ak salaam. mais mais naka nga gisee euh, nu ñu arrêté Assane Diouf fekk ko këram euh, arrestation wu Assane Diouf surtout euh, parfois sax dafay niru ni vraiment lii violation wu àq ak yelleefu doomu aadama bi naka nga gisee seen bi nga xamante ni moom la ñu arrêté Assane Diouf parce que moom ba ñu ko libéré ak léegi yàggul te même seen ba lañ ko arrêté woon ak bi nga xamante ni mi ngi doon kaas ak askan wi nga xamante ni dañoo ñàkk ndox mënuñ am ndox naka nga gisee. seenu dernière arrestation bu activiste bi di Assane Diouf. recul démocratique euh, démocratique laa fi gis waaw recul rek laa fi gis loo xam ne tey même ba ci kaw euh, Ousmane Sonko bi naan nañ ci ñëw léegi waaye lépp loo xam ne tey amaana ñoo ngi koy utiliser def par force par force di ko jëmal di as ci askan wi yaakaar naa ni loolu noonu defuñu lu dul salfeñe suñu ay yo suñu ay droit defuñu lu dul di delloo ginnaaw suñu démocratie moo tax tey c'est urgent que dañoo war ñu ñëpp jug taxaw pour aar suñu démocratie ndax loolu bu ngi nee ba aar ko amaana yi nga xam ne def nañ ko Assane Diouf suba mën na la daal yow moomu eh, nekk Momoro. Hmm. ginnaaw soo mën na ma dal ginnaaw soo mën na dal keneen. donc nag il est c'est le moment de dire stop di ça suffit que ñun kat suñu ay droit dañ koo respecté dañ koo respecté suñu buggee ñoom ñu respecté seen ay loi sinon bu ñu respecté suñu ay droit duñ mën a respecté seen ay loi loolu si loolooy jafe-jafe nga xam ne ñoo koy dund tey si suñu réew mi. mais beneen bi tamit dinañ la laaj ci Clédor Sène parce que benn euh, message wala jàpp nañ ni Clédor Sène da doon organiser euh, benn mouvement de de résistance fitna wala yee fitna. Euh, mhm. daal di ci collaborer ak Assane Diouf Guy Marius Sagna ba ñu tëye leen. yow naka mhm. gisee loolu ñuy tuumaal Clédor Sène ban appréciation nga ci am. xam nga Clédor Sène il a un beau dos comme lu Macky Sall di wax naan l'Afrique a un bon dos Clédor euh, nekk na ko xam ne aussi ak naa am na ay am na kii nit ko tuddee sax euh, ginnaawam tey mun naa ne xaw na xaw na ñagas mhm. donc si bëtu sénégalais soo ko tuddee si affaire wàllum attentat ay ay préparation ay organisation xel yi bay dafay tey waaye man jàpp naa ne Clédor sama grand la sekk nañ jàmm ak salaam te wax dëgg fa la yàlla ah man de gisu ma si moom lenn loo xam te nii amaana ñaaw teef lay doon lu lan bëggub Sénégal tey ji tey yenn Sénégal yu bëri ci lu jëm si suñu ressources naturelles yi maa ngi koy wax di ko waxaat Clédor Sène patriote laa ko jàppee ndaxte boobu ba tey gis nañ ne vraiment mooy nekk di gindi askan bi di éveiller conscience jàpp naa ne tey tamit bu ñu demee bu bugg koo takkal ci affaire attentat ak yenn ak di rappeler que ñun nous sommes des mu nous sommes des patriotes amuñu benn intérêt pour taal suñu réew amuñu benn intérêt pour jël suñ pour nekk ay ay terroristes wala leneen leneen leen donc man jàpp naa ne ah ñun ñi nga xam ay activistes lañ Clédor Sène mi nga xam tey tudd nañ ko ci mbir moom jàpp nañ ko ah lu injuste la parce que bu fekkoon lañ koo fekk en franc grandeur wala ñu jàpp wala ñu jox ñu ay preuve yoo xam te ni tey parce que audio boobu ñëpp a wax du moom kase kenn ñun ñëpp ñoo ngi koy waxtaanee xanaa boobu dafa génn rek. Hmm. léegi nag jàpp naa ne aussi du loolu nekk benn preuve boo xam te ne tey mën na convaincre sénégalais yi kii di Clédor Sène kat ah gën a taal réew mi te yaakaar naa ne man awma perception boobu ci ki nga xam ne moom mooy grand Clédor. léegi ñu laaj la Ardo Gningue ci euh, naka nga gisee démocratie bi am fii ci réewu Sénégal parce que da ngay gis ni am na lu bari loo xamante ni maître Abdoulaye Wade liggéey na ko ci wàllum démocratie ak tamit mhm. liberté d'expression fii ci Sénégal euh, mhm. tey ji yow ci euh, weesu nañu régime bu Abdoulaye Wade depuis 2012 depuis 2012 ñu ngi acculé di Macky Sall boo doon natt tey démocratie liberté d'expression ak tamit li ñuy wax menace des libertés lan nga ñu ciy wax ci wàllum démocratie bi tolluwaay bi xam nga kaaw Ousmane Sonko dafa wane limite bu suñu démocratie dafa wane faay bu suñu démocratie parce que ñun lu ñu yàgg di ndamoo li nga xam te ne tey mooy séparation des pouvoirs législatif judiciaire exécutif tey kaw Ousmane Sonko bi dafa jël loolu lépp remettre ko en cause dafa jël loolu lépp démystifier ko xam nga sénégalais ne kat ñun ko lu ñu ñàgg ni namoo ne kat suñu réew am na justice suñu réew am na démocratie suñu réew am na séparation des pouvoirs loolu lépp phrase parce que kii di Ousmane ko député la te pour yoon teg ko loxo def na wala deful. ka ngay nattee démocratie bi ak régime euh, bu Macky la am na yokkute wala am na wàññite par rapport li nga xamante ni euh, maître Abdoulaye Wade def na ko fi ci wàllum démocratie. waaw maître maître Abdoulaye vraiment lépp luñ ko mënti waxal jàpp nañ ne démocrate la parce que moom lépp luñ ko mënti waxal tey ji tey lii nga xam ne Macky Sall moo koy utiliser euh, appareil bi muy utiliser. lépp lu mënta Macky Sall mu ci def Abdoulaye Wade moo ko fi bàyyi te bu ko utilisé woon amaan na Macky Sall du nekk président parce que je me am na benn jour amoon nañ manifestation place de l' indépendance ñu ñu dem fa ñu testé seen benn dispositif jël barricade place de l' indépendance yëpp yaakaar naa yow boobu numéro. Mhm. yaa ngi fa woon. Mhm. foofu yëpp la ñu ba kenn mënu am accès si fi nga xam ne. moom mooy place de l'indépendance li ma lay wax ni c'était en deux mille dix neuf. Mhm. léegi ñu ngi si vingt et mhm. tey yaakaar dispositif boobu noonu ñu réussir ko tey jii lii di xam ne yëpp yàgg nañ ko testé si askan wi maanaam jaay doole jël suñu force de sécurité et de défense teg leen ñu ñu nekk ci kanamu askan wi jël ñoom vraiment ñun li xam ne suñu ak ak suñu ay yelef wëccee ñu ko benn ñoom suñu ay marche duñ ko autorisé te tey ji tey. 23 juin bu amee yaakaar naa ne bu ñu nee mën a accéder place de l'indépendance la Abdoulaye Wade joué na si rôle bu am solo même yéen presse bi sax mënoo leen accès sax si biir place euh, de l'indépendance ki euh, assemblée nationale. Mhm. donc yéen ñi yaakaar naa ne constaté ngeen suñu recul recul démocratie bi te tey dafa am loo xam ne nii boobu lañ doon namoo mooy lan séparation des pouvoirs euh, pouvoir positif pouvoir judiciaire pour pouvoir euh, euh, exécutif pouvoir législatif tey gis na ne ci kaw Ousmane Sonko manqué gis nañ ci ay limites gis nañ ci ay failles loo xamante ni mën nañ jàpp ne démocratie bu ñu na moo démb ak barki démb amu fi parce que ci di Ousmane Sonko ci mbërëm mi ci cas bi gis nañ ne pouvoir exécutif laale na ci pouvoir judiciaire laale na ci pouvoir législatif laale na ci xëy na jàpp naa ne fi ñu toll nii kat dem nañ ba gis ne kat ñun Sénégal kat lu ñu doon namoo naan séparation du pouvoir naan démocratie loolu lépp France dara amu ci donc loolu nag constat la les faits sont sacrés et les commentaires sont libres ñun ñëpp ñoo ko constaté noonu. kon yow da dëggal ñi wax ni les libertés sont menacées Sénégal da dëggal. bien sûr les les libertés sont menacées suñu article huit jox ñu liberté de manifestation tey ji tey. kan moo fi am liberté de manifestation ban manifestation dañ ciy autorisé indil nañu Covid 19 euh, coronavirus partout dans le monde askan bi ñu si bëri tey gis nañ ne kat système bi nga xam ne tey nit tegoon nañ ko système boobu doxul système boobu baaxul léegi nag lan mooy solution bi ñu indil ñu coronavirus indi ñu ay ay euh, li nga xam te nii moom mooy euh, confinement ak yeneen ak yeneen rester chez pour la bañ soulèvement populaire am bañ euh, bëgguñu askan wi jub pour di exprimer yaakaar naa ne loolu ñun Sénégal euh, preuve la boo xamante ni bu tangible pour li nga xam ne mooy suñu ay limite ci ay expression ci ci suñu ay liberté d'expression suñu ay limite la ci nga xamante ni mooy suñu ay liberté ñu gis ne kat vraiment ah dañu dellu la ginnaaw bu baax a baax voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Ardo Gningue Ardo Gningue nekk euh, activiste nekk tamit acteur politique fan yi Ardo Gningue gis nga ne euh, police ci boppam ñuy laam-laamee ay wàllum torture ak yu ni mel mhm. police daal di menacer ni képp ku ko maanaam ñi koy accuser de torture ci lu ni mel sax kile di Guy Marius Sagna actuellement mi ngi ci kaso bi mhm. daal di def moom benn communiqué euh, ne dafay accuser euh, la police et les forces de l'ordre euh, de torture léegi yow lool naka nga ko gisee police ni muy dànkaafoo ñi nga xamante ni ñoo koy accuser de torture bala ñuy ñëw ci yow li nga xamante ni dund nga ko carrément ci wàllum torture ci kaso yi file ci ci ci Sénégal naka nga gisee police bi dànkaafu askan wi koy accuser ci ay torture Guy Marius Sagna dellu dëggal ko indiwaat ay cas yu baree bari yoo xamante ni ay victimes de torture lañ euh, de la part de la police. xam nga loolu. Mm-hmm. Euh, police seen communiqué boobu yaakaar naa lu ñu ko def ñu doon kaaf lu ñu ko def mooy que ne mooy police nationale dañuy respecte ay suñu àq ak suñu yelleef police kenn dafa torturé te ñu ñëpp xam nañ ne loolu nekkul loo xam te ni mooy dëgg li nga xam ne ñoo koy dund. ci tali bi ci taximan bi di car bi di mo borom moto bi ñun ñëpp lu ñuy dund ci kaw tali bi ay torture guddeeg bëccëg jaay doole bu ñu la jàppee yóbbu la si bi traitement bi yow mii di dem di wuti yow mii di dem di wuti passeport nu ñu lay traité loolu lépp ay torture la parce que yaakaar naa ne lépp loo xam te ni dafa nekk yow nga nekk doomu aadama ñu lay restreindre ci ay loi ñu jàpp la di def looloo xam te ni c'est contraire par rapport à votre liberté yaakaar naa ne loolu lépp bu ñu koy def pour lan jaay doole la pour lan seen tenue bu ñu xam te ni moom lañ sol mais bu fekkoon ne civil civil la li nga xam ne am na sañ-sañ di ko def duñ ko mës a def te aussi tey guy message moom victime la si maam mii di wax ak yow victime laa si donc ñoom mënuñoo toog di génne communiqué si kanamu sénégalais yëpp di ridiculiser seen bopp naan torture amul Sénégal ndax man mi victime laa si mun naa si wax lu bëree bëri bari ndax subir naa ko. waaw ma man sànni noonu keneen ak keneen keneen noonu jàpp naa ne kon torture yooyu ñu wax naan amul si Sénégal donc loolu amaan xanaa beneen Sénégal moom waaye Sénégal bi ñu dëkk. Mhm. jàpp naa ne ñëpp constaté nañ que ne torture. am na si réew mi dañuy des foofu parce que yow yaa doon accusé gendarmerie de torture euh, ci mhm. événement yu yu Tovene euh, euh, ba nga déposé ñetti plante est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci mbir événement yooyu ak tamit ci torture yooyu nga xamante ne nee nga yow dund nga ko lan lañ la doon def exactement. waaw xam nga dafa amoon contentieux entre paysans yu Tovene ak ICS e léegi nag gendarmerie nationale. ñëw di intervenir ba ñu ñëwee di intervenir daal di dëkk ba di leen jaay doole ñu noot leen xëy na njëkkoon nañu ko ñëw plantation bi am waa dëkk ba daal di fipp ñaat fay ñëwaat fajar jàpp waa dëkk ba di leen def loo xam te ni comme si ñu nekk Bagdad wala ñu nekk si yeneen dëkk yoo xam te ni dañoo nekk si guerre ñun ñëpp siraan nañ leen ko man ni ngeen si jotee si réseaux sociaux yi si jotee yàlla def mu fekk ma teewaat ma dem soriwul à sept kilomètres ma dem ko def constat des faits ma jàpp fekk fa ñu jàpp vingt deux personnes tëj leen jaay leen doole torturer leen dóoral leen tëj leen ci kaso bi man nag ma jàpp ne lii c'est pas normal ma woote ah neef kat suma seyoon dañuy ñu ñun ñëpp soutenir leen ndax ñu ay sénégalais lañ te waruñu seetaan vraiment ñuy jaay leen jaay doole parce que bu ñu jógee soobee amaan ci miwaan lañ jëm après beneen dëkk Maka Dieng après beneen dëkk ak beneen dëkk. ba korog ñuy dal ci suñ Tiwaawan donc ñun waxtaan waruñu si daan loolu comme si que et moo nekk chef lieu de département bu nga xam te ni Tobène ci la nekk bu loolu lépp amee gars yi jàpp ma ne ma waroo woote manifestation ah da nga def euh, appel incitation à la violence jàpp ma sama sama avocat maître Khoureyssi Ba maa ngi koy nuyu au passage mu nekk dakaar man maa ngi nekk Tiwaawan trente mille lañ la may. no deux heures temps la may pour que sa avocat mun a teew te bu teewee trente minutes nga mun a am ak moom moo ko mun la consulter léegi Dakar Tivaouane sori na le fekk moo avant may woo sama avocat gars yi bañ ma jàppee avant ñu may jàpp ma torturé ma donc torture yoo xam te ni métti na trop yoo xam te ni tragédie la dund naa ko pare bu ma jugee si loolu defeere ma yóbbu ma prison bu Thiès bu ñu yóbbee prison bu Thiès ma fekk fa waa Tobéni ñu yóbbu ñu euh, kii jugement ñu libéré ñu def ma sursis perdu sama sursis yaakaar naa ne loolu noonu yëpp do jaay doole googu doon moo jur tey askan bi tey bu ñu gisee ñu war ñu def loolu Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi nga xam tey moo leen bëgg a jële si buumu njàpp ah ñu ne kat duñ ko seetaan ndaxte kay la dal Tobéni dal Ndingler dal euh, Terme Sud Daaru Mbuur kat amaana mun na dal si beneen dëkk ak ci beneen dëkk ñu gis ne Ousmane ko ñëw na moom indi benn discours wax na tey pare na pour révolutionner pare na pour soppi réew pare na pour génn ñu ci mbuumu njaam yi xam te am nañ ko avec les impérialistes avec les multinationales ci mel ni ICS ki si mel ne Orange ki si mel ne Eiffage ki si mel ne yeneen Total chance euh, genn ak genn ak genn ak suñu franc CFA bi nga xam te ni tey dafa jot sëkk ñu tàqali ko ak moom donc tey kooku di Ousmane Sonko mhm. moom lañu bëgg a jaay doole moom lañu bëgg a tëj ci kaso bi ci benn complot boo xam te ne ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko du kuy violé nit ñëpp xam nekkul koo xam te ne tey amaana mu lii ñu ko ji nekkul loo xam te ni yenn na maanaam raison pour laquelle jàpp naa ne lépp loo xam te dafa jëm si wàllum torture ak yeneen ak yeneen yeneen loolu noonu yëpp moo jur lii c'est la loi de la causalité. tout cause. Mhm. produit un te lii mooy effet bi. mais est-ce que yow gëm nga ni Ousmane Sonko c'est vrai discours bi euh, neex na rassuré na euh, jeunes yu bari ba tax jeunes yu bari euh, adhéré ci projet bu Ousmane Sonko mais est-ce que jàpp nga ni Ousmane Sonko mi li muy wax en tant que opposant tey jii bu yàlla defoon mu toog ci bopp réew mi est-ce que du def sax piir que Macky Sall actuellement li muy def sénégalais yi ñu koy ŋàññ. Mhm. xamul tax. bépp opposant bu mu si ñëw toog discours bu ñu daan indil ak promesse yi ñu daan jox bokkul ak bi nga xam te ni Ousmane Sonko moom la tenir moom rek depuis notre indépendance entre parenthèse jàpp naa ne ñun ba léegi amaguñ indépendance ba ndax foog góor ñi doon wotee lii ñun noonu lañ ko voté pour lan communauté française lan lañ am fédération du Mali plus tard la am benn écrasement Mali ak Sénégal ndax lan kan moo war a boobu fédération léegi nag indépendance boobu nga xam ne moom lañ yàgg doon rêvé depuis mille neuf cent soixante cinquante yu sax ba léegi tey son ko te moom la ñëw pour euh, kii pour dagg boobu njaam pour jëlee ñu ci franc CFA pour que suñu contrat pétrole yi ak gaz yi ak lépp loo xam te ressource naturelle la géej gi ñu jaay jën yi yeneen ak yeneen ak yeneen lépp loo xam te ni zircon bi or bi loolu lépp xam ne ni askanu Sénégal ñoo ko moom te Ousmane Sonko loolu la ñoom ñu ngi ñu discours bi nga xam tey nee na système bi tant que moo ngi fi di ñu di mu ci deret jàpp naa ne ñun Sénégal sénégalais yi du nekk nekk dañuy à chaque fois dañuy nekk étranger chez nous comme ni ñu ko nekkee jamono ji may wax ak léegi nag lépp loo xam te ni amaana Ousmane ko loolu nga xam ne intérêt yooyu yëpp mu loolu mu muy menacé tey bu mu retourné wu ci kaw ñu bëgg a jóg bu koo xeex léegi nag Sénégal ñoo war a xam lañ bëgg ñun jeunesse bi ñoo war a xam lañ bëgg bu fekkee ne dañoo bëgg toog fii réew bu fekkee ne dañoo bëgg yeneen dëkk yi ko ñu kon ñun nañ leen respecté te ñoom respecté wuñu daa amaan tey Sénégalais bu fu bëgg dem Europe wala mu dem benn dëkk dina soxla visa te te suñu réew mi képp ku fi bëgg a ñëw c' gratuit amul benn Sénégal wala état du Sénégal amul gisoo benn base armée mu implanté ko si beneen dëkk nga gis France mu implanté bi armée États-Unis noonu te ñu yaakaar naa ne am nañ suñu état am nañ suñu armée boo xam te war na mën a sécuriser suñu réew te yaakaar naa ne suñu souveraineté dafa nekk loo xam ne tey dafa nekk. en léegi nag moo tax waruñu seetaan ñu jàpp Ousmane Sonko di ko sàkkal pexe. mais lan ba léegi tontu woo ma lan mooy wane ni euh, Sonko mi li muy wax dana ko def une fois mu nekk président. yéen ba ban espoir ngeen si am ba ban kóolute ngeen ci am. exactement. kóolute kóolute buñ ci am mooy que ne Sonko def ba mu nekkee député ba léegi gisuñu benn yoon vraiment ñu ne def ba mu nekkee Sénégalais bi nga xamee ba léegi. gis nañ ne à chaque fois état du Sénégal moo koy jéem a gis nañ ne boobu ba léegi gisuñu benn yoon ñu laal na suñu sàcc na suñu un franc gisuñu boobu ba léegi li ñu digg woon mu tegg ci tànkam benn yoon lépp loo xam dafa nekk ci wàllum gouvernance ci ci député gu mu nekk ak ci yeneen yeneen gis gisuñu benn yoon ñu tudd ko ci benn scandale donc yaakaar naa ne war na mën nekk espoir ci suñu réew parce que ñi fi nekk ñëpp. sans exception peut-être dina am exception après mais jàpp naa ne ñu fi nekk ñu si bëri kenn ku nekk laal nga si mus nga laal si état bi wala sa loxo setul moom na jàpp na ne ay loxoom set na wicc te ku sa loxo set buñ la buggee dénk réew war nañ ci mën am yaakaar. waaw beneen bi muy affaire Ousmane Sonko ba léegi. gis nga dañu ko tuumaal ab viol mu nekk loo xamante ni peut-être mi ngi njëkk am ci histoire du Sénégal ab opposant politique euh, ñu koy tudd ci affaire de mœurs yi rawatina euh, wàllum viol euh, coow li bari trop ñu naan Sonko moo def deful complot politique la ainsi de suite ba tey jii ci vendredi bi lañu ñu daal di lever immunité parlementaire parlementaire am yow déjà euh, ban jàngat nga am ci levé nañ immunité parlementaire am parce que Sonko moo taxawoon ne carrément euh, député la mënul wuy ji justice nañu jaaral lépp ci yoon comme constitution bi ni mu ko waxee euh, suñu bëggee mu dem wuy ji justice ci tuuma yi nga xamante ni aji Sarr mi ngi koy teg ci ndoddam nañu dindi immunité parlementaire am suñ koy dindee neuf heures moom dix heures mu dem wuy ji tey ji dindi nañ immunité parlementaire boobu ban jàngat nga ci am non nañ ko ma nga baal ma Ousmane Sonko lu mu wax c'est très dafa ne bu ñu ko jaaralee si yoon jënd sama immunité dix heures dix heures cinq ma dem wuyu ji waaye jàpp nañ ne nit ñu bëgg a yëkkati immunité parlementaire teguñu ko si yoon de un x boobu ça pose problème de deux procédure bi nu ñu ñu ko gaawalee si yoonul maanaam de trois jàpp nañ ne li nga xam ne moom mooy étude bi waral ci li nga xam ne pour commission ad hoc ak enquête bu mu war a def jaaralu ko si yoon donc plénière bi nga xam ne ñu koy organiser tey nekk loo xam te ni lu légal la parce jàpp naa ne commission ad hoc boobu bu ñu ko tegee pour lan la war a doon pour que ñu mën a saytu ba xam Ousmane Sonko mii kat yan na maanaam ñu ngi yëkkati immunité am waaw wala déet te je rappelle immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ce n'est pas député yi ñoo ko jox c'est le peuple ñoo ñoo ko te il est mu war a taxaw wax ne moom il garde son immunité parlementaire parce que askan wi ci boppam ñoom ci boppam ànduñu ci li nga xam ne noonu lañu yëkkatee immunité parlementaire bu son ko parce que tey jii commission boobu hoc mi le minimum xanaa mu présenter benn euh, certificat médical buy attesté buy wane nag kat effectivement yaa a eu ou waaye gis na ne lii fi ñu jaar Ousmane Sonko suba Ardo mun na nekk député suba yow Moreau mun na nekk député suba keneen ak keneen mun na nekk député waaw bu fekkee ne li nga xamante ne askan bi moo la ko jox muy sa carapace muy loo xam xamante ne amaana bu moo lay aar ba exécutif bi du mën a daal sa kaw ba judiciaire du mën a daal kaw te bu fekkee ne loolu bu kenn lu waay jóg ñu ne mbirim màcc rek ñu mun ñu ko yaakaar naa ne boobaa da nekk loo xam te ni amaana lu garaaw a garaaw garaaw day menacé suñu démocratie raison pour la laquelle ñun ñëpp c'est urgent ñu war a mën a jóg aar suñu démocratie waaw dindi nañ immunité bi nee nga est-ce que yow da ngay euh, dëggal ñi wax ni c'est un complot purement politique pour éliminer euh, le soldat Sonko wala euh, mbir mi dafa am ak benn sénégalaise lamda problème mu viol comme rek ni ko ñeneen ni ko niñ koy gisee tout le temps euh, ñaari sénégalais jotee ci affaire viol ñu yóbbu leen tribunal war leen juger yow da ngay mm-hmm. dëggal complot politique bi wala exactement lan nga ciy wax. non politique bi si Sénégal ku wax rek ak sa akulaay tala ñëpp xam na ne Ousmane Sonko soxlawul violer benn xale bu jigéen au contraire xale yu jigéen kay ñoo ko waroon a wër di ko violer mais Ousmane Sonko mooy violer waate benn ñaar li nga xam ne moom lañ bëgg a teg ci loolu Ousmane Sonko bi mooy viol bi ñu xam ne moom la ko bëgg a tuumaal man damaa jàpp ne complot la. parce que dès l'instant ñu si ay Sidi Ahmed Mbaye mu nekk euh, mu nekk ay manifestation genre euh, sol sol t affaire mu nekk parti wala mouvance bokk si mouvance présidentielle bokk si parti boo xam te nii le président Macky Sall moo ko jiite jàpp naa ne donc loolu mën nañ jàpp ne c'est avéré mun nañ jàpp ne complot boobu kat lu am na bu ñu demee ba si tudd ay avocat yoo xamante ni ñoo ngi si mouvance présidentielle bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yëpp foo fépp foo ko boo ko dàqee moo da Malick Mbaye loo si dàq rek si mouvance présidentielle la jëm tey nekkul un Sénégalais de lambda moo jotee ak Ousmane Sonko ñu siy wax violo am na wala déet ndax boobaa dañuy jàpp ne c'est privé bu doon benn Kumba Njaay la boo xamante ni xamuñu ko. boo xam te ni kenn lu jëm si wàllu APR wala benn boo koy xaar laale wu si boobaa mën nañ jàpp ne lii c'est privé mais koo xam ni day def na dañ ko violé ñan ñoo koy encadré waa nguur gi ñan ñoo koy encadré parti politique boo xam te rival la si <coughs> parti Ousmane Sonko c'est très normal que ki nga xam ni mooy pire adversaire bu président Macky Sall comme nu mu ko waxee si réplique mu ne sama pire adversaire donc yàpp naa moom sa pire adversaire am bu fekkee ne dañ koo bëgg a daan bu fekkee ne dañ ko bëgg a yóbbu si yoon ci la kan moo si kan moo ko kan moo si laale moom si boppam waa këram mën nañ jàpp ne kon complot la loolu dong la jarul sax ñu guddal mais est ce que yow euh, ñi wax ni Sonko koo xamante ni actuellement yaay euh, principal opposant ci régime bu euh, Macky est ce que moom tamit wax comme li ñuy waxee il a prêté le le flanc dafa jàdd le fait que muy dem di fréquenter ay salon de de massage yu mel noonu bañ jiñ ko fa viol xam nga nekkul maro mhm. bu yëpp ñëwoon am na ñoo xam ne day seen cër Thomas Sankara la menace yi mu doon posé xam nga président Sonko ko président mais Thomas Sankara dafa nekkoon président Burkina Faso di dawal vélo di dawal vélo di do di jaar fi fi nga xam te mooy di biir dëkkam te ñëpp xam nañ ne moom moo nekkoon ennemi numéro un des impérialistes parce que xam ñëpp xamoon nañ ne anti impérialiste la doon menacé intérêt wu français yi intérêt wu multinationales yi ci dëkkam boobu di Burkina Faso si vélo doon dawal di dem maanaam boobu simplicité moom moo nekk ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko démb danaan fréquenter ay salon de massage dem ba mu nekk loolu moo waral tey jàpp naa ne moom li nga xam moo nekk si moom yàgg na si moom ba mu nekkee impôt doon na ko def day jàpp naa ne kon man arroñu la tuuti naa lool pour ja ne ko ah comme ça léegi nekk nga léegi candidat présidentiel su ma sewoon kat da ngay bàyyi di maasew ah moom si boppam conscience tranquille am bu ko mayee muy dem di salle mu leer ko ne moom da ba demee am na loo xam te moo nekk si moom jàpp naa ne qualité googu xam Sénégalais am nañ ko si moom mu fréquente salle du tax mu dañ mukk parce que lu may wax rek loolu noonu c'est sa vie dundam la noonu lay doxalee kenn ku nekk ni yow di man kenn ku nekk si ñun am na loo xam te ni tey yaa ngi koy def ci sa vie ci loo xam te nii yow nga concerné te moom buy dem di fréquenter salon de massage moom la concerné concerné loolu lu ko li si mais mais est-ce que tamit gënul woon yenu maana Ardo mu dem mhm. comme que dafa feebar ak lu mu expliqué yëpp c'est vraiment mhm. sérieux bokkul ak mhm. koo xam ne peut-être sa da nga toog nii sa yaram di métti simple nga dem ci salon de massage mais moom dafa feebar est-ce que gënul woon raisonnable muy dem di fréquenter ay kinésithérapeute ñu koy faj waaw xam nga loolu laa lay wax loolu moom c'est sa vie man. Ah, lu ah mais yéen a ngi koy yéen koy xeexal tamit est-ce que tamit waroo leen ko wax dëgg. waaw xam nga dama lay wax benn affaire. Mhm. man mosuma xeexal Ousmane Sonko man su may xeex dëgg laa xeex ak Sénégal moom Ousmane Sonko ni mu mel lu mu war a def ak lu mu warut a def damay lay ñaan. nga woowaa Pastef mm. nga laaj leen ko waaye man ci kii ma concerne mm. xam nga lan la Ousmane Sonko discours yi muy tenir ak promesse yi nga xam te ne tey moo koy tenir à l'endroit des Sénégalais loolu noonu projet boobu moo ma intéressé si la personne d'Ousmane ko mais pas sa vie privée voilà tey jii tamit ñu laaj la élection 2024 euh, ñan nga gis ci arène bi gis nga Macky Sall sampaan ndëndëm ak keneen ak keneen naka nga gisee élection présidentielle 2024 euh, fii ci senegal ci sa njàngat yan candidat nga gis. waaw xam nga sama benn sëriñ de sànq Moussa Sy maa ngi ciy nuyoo passage daf ma Moussa posé benn question mu ne ma Ardo waa réew moom à part Macky Sall nga fi gis ku muy defar réew mi. mu ne ko ah xanaa Sonko mu ne ko ah, ah Sonko ko waaw mu ne ko ah comme si moom nga gis baax na loolu dafay wane ne échec gu opposition bi dafay wane ne vraiment ñun jàpp nañ ne suñu démocratie bu ñu ko bëggee sauvegarde il faut que ñi nga xam te nii ñooy li woote mooy opposant ñu wuyu ko te tey jàngat bi mu am analyse bi am mooy que ne cette complot bi mu nga xam am na PDS en personne dugalu ci loxoom waaye jàpp naa ne lu ko arrangé lay doon ndaxte ci sama njàngal bu gàtt gëm naa ne dans les prochains jours à venir Karim dina ñibbi te texte yi nga xam ni président Abdoulaye Wade tunkoon na ko ci li nga xam ne moom mooy chef de l'opposition loolu lépp dafay wuyu parti PDS te tey kon bu am Karim Wade ñi bi si waat si dëkk bi jàpp naa ne moom kat statut chef de l'opposition boobu dañ ko jox parce que PDS moom moo nekk parti bi nga xam te ne moo ëpp ay représentant si assemblée nationale léegi nag gis nañ fi ñoom gàkku gis nañ jërëjëf Déthié Fall moo ngi def benn signal pour l'opposition ah jàpp naa ne suñu réew mi kat ah bu fekkee ne opposants yi bëgg nañ ko dañ taxaw opposé wu ndaxte fu ñu jëm ak waa nekkul foo xam te ni euh, lu lu lu tey xel da daal. d'accord yow daal loolu nga gis. Mhm. léegi euh, peut-être dernière question bu ñu lay laaj Ardo Gningue di affaire euh, vaccin yi contre la Covid 19 gis nga euh, deux cent mille doses Sénégal jot na ko am na sax yum si jot a jël maye mais en tout cas nee nañ daañu indi yeneen ba ñu commencé di vacciner askan wi contre la Covid 19 gis nga démb président Sall ci la jël dose am ne bu Sénégal yi bëggul vaccin yi moom da koy jël may ko yeneen réew yi yow ànd nga ci vaccin bi ñuy def waaw wala déet parce ñu bari wóoluwuñ vaccin yu ni mel. xam nga le président Macky Sall dafa war xam ne nekkul ci royaume benn le ministre Diouf Sarr mosoon na def benn posture wax ne Sénégal Chine may na leen deux cent mille doses tey mu dem par la suite mu supprimer ci boobu ñu demaat ba ba ba Kidima Ndiaye fan yii vendredi bi passé ñu indil ñu ay vaccin ñu ne ñaata vaccin la deux cent mille doses fan la jógee ñu ne Chine ñu dañ ko jëndee deux virgule deux milliards tey jii ñu gis li nga xam ne mooy euh, communiqué bu jigee ci Chine ñu ne Chine joxe na doowu deux cent mil doses de vaccin Sinopharm donc loolu dafay wane ne carrément ñun suñu réew mi sàcc bi ñu fiy wax ak détournement bu ci wax saa su nekk dafa dem ba nit ñi sax li ba ba ku ñu jiite laa ko da koy def da koy nit ñi ñëpp di teg seen bët parce bu demee ba ni moom jën na deux virgule deux milliards ci askanu Sénégal jëndee ko dose vaccin bu Chine waa Chine si boppam ñoom seen presse daal di relayé que ne kat Sénégal Chine may na ko dë cent mille doses de vaccin donc jàpp naa ne le président Sall moom làqutootul sax léegi day def lu muy def ne ko fang ne ko daj ci ñëpp def ci jot. te duñ ci mën dara rawatina nag euh, manque de respect bi nga xam ne tey mu bu ñu jàppee bu jàppee ñun ñu jël suñu àll deux virgule deux milliards jëndee ko ay vaccin du xaalisam jëlee ko si poosam si poos Sénégal la ko jëlee lan moo waral buy dem di jël ay may ay vaccin mu tàgguñu ndax suñu alal la benn ñaar mu weesu na foofu mu taxaw naan soo leen vacciné wul damay jël vaccin yi maye ko yeneen dëkk mais mais na ko ne benn ñaar man vaccin yi ah tey neexal parce que fa mu jógee di Chine jamono jii may wax depuis 2017 ba léegi dañuy nekk di traquer les musulmans yu nekk foofu. Hitler na doon jëflante ak juif juif yu nekk Allemagne tey jii tey Xi Jinping président Chine noonu la nekk di ko jëflante ak jullit yu nekk fële di Chine li ma lay wax bu nga ko vérifier fii journal Le Monde. parce que benn dëkk bu nekk Ouïghour un million dix millions de musulmans ñoo fa nekk ci dix millions de musulmans yooyu jël na un million yi tëj leen dans des de détention mu ne kat ñii kat dafa war a dafa bëgg enlever seen islamité mu wax ci aussi te ñooñu di jullit yi dafay menacer li nga xam ne moom mooy politique bu Chine xoolal googu léegi mënuma ko concevoir yow xii yow président Chine yow ngay xeex jullit sa biir dëkk ñoom si benn dëkk boo xam ne quatre vingt quinze pour cent de population ak jullit lañ nga ne leen bëgg a faj benn ñaar OMS di nga xam ne tey war nañoo jox ay ay ay vaccin hmm. moo war a jógee ci ñu seen ay labo vaccin yi ay forme mais dama ne ñoom nee nañ trente pour cent dinañ dinañ vacciner trente pour cent de la population africaine d'ici vingt d'ici fin deux mille vingt et donc ñoom jàpp nañ vaccin pour trois ans parce que bu ñu nee trente pour cent donc dese na yeneen euh, soixante dix pour cent fekkee ne année bu nekk trente pour cent donc mën nañ jàpp ne kon trois ans dañ jëm ak ñun benn ñaar ñoom de bu ñu fàttali ba corona bi commencé ñu waxoon ne Afrique dina am plus de quatre-vingts millions de morts tey ñooñu ñoom ñoo jug tey. bëgg tey tax seen pexe bu bu suti amaana tey duñu ñëw naan lañuy jox ay vaccin yaakaar naa ne ñoom ñoo njëkk ñoom ñoo gën a yëtoo yittewoo vaccin yi que ñun Afrique que ñun Sénégal ndaxte Amérique ci boppam seen États-Unis seen président d'alors mooy euh, euh, Trump moom ci boppam taxaw na def na benn communiqué wax seen ñëpp àdduna gépp dégg ko mu ne Amérique dina génne loxoom si subvention yi mu doon def fële si OMS parce que d'après enquête yi mu doon def gis nañ ne États-Unis si temps wu Obama ñoom ñoo doon euh, financé li nga xam ne moom moo nekkoon étude bu coronavirus te te Amérique États-Unis ñoom laal nañ ci bu baax a baax baax raison pour laquelle ñu lañ ci génne seen loxo léegi nag ki nga xam mooy Bill ki nga xam ne tey nee na fii ak cinquante ans euh, euh, population mondiale bi dina dina doublé wu. de wax na ne Afrique kat dañoo war a limiter seen ay naissance kooku di Bill Gates jamono jii may xëy ci fondation Bill Gates bi moom moo nekk premier contributeur bi nga nga xam ne moom mooy OMS te OMS boobu moo retourné wu ne dafa bëgg a faj Sénégal OMS googu nga xam ne premier contributeur bi nee na dañoo war a wàññi population bu Afrique te tey vaccin bi nga xam mooy Covid 19. Mhm. jàpp naa ne moo ngi di bu muy njëkk na feeñ en 1930 fële ci États-Unis ci ginaar yi lañ ko njëkkoon a constaté ci lan fan la doon fan la doon euh, euh, impacté wu ci li nga xam ne moom mooy seen appareil respiratoire ak ñenn ñu doon nen ak ci malformation bi te tey soo dee xool ci doomu aadama yi noonu lay euh, manifesté woo raison pour laquelle jàpp naa ne ñoom lu ñu bëgg. leen rek la rey askan bi te aussi ñu réduire seen njureel njur gi nga xam ñoo koy jur ñu mën koo réduire ndax jàpp nañ ñoom tant que population bi ñoo ngi yokk seen ay intérêt dafay menacé wu raison pour laquelle jàpp moo ne ñun Afrique ñun Sénégal waruñoo nangu boobule vaccin. voilà Ardo Gningue foofu la ñuy tàggatoo waxtu bi xooj nañu xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yeeg internautes yi. jërëjëf euh, les auditeurs les auditrices maa ngi leen di ziar di kontaan ci yéen ak euh, les internautes vraiment nekk na loo xam te ni lu am solo émission bi bëgg nañ ci lool ah suñu jigéen Ndeye Moreau maa ngi koy bëggee Ndeye Kumba vraiment di nuyu aussi waa Tivaouane sama waa dëkk. Mm-hmm. di di wax ñu ñëpp nañ takku suñu réew mi nañu jaral ñu ñëpp ñu war a mën a taxaw. aar ah, suñu démocratie jërë ngeen jëf. jërëjëf Ardo Gningue ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité Ardo ñu leen di fàttali nekk activiste nekk tamit acteur politique ñu doon waxtaanee lépp lu soxal actualité bi dégg ngeen ko euh, di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube euh, Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf